république partout fépp fu mu doon jaar doon na inaugurer ay projet mais itam doon na saytu ay projet bokk na ci le marché de le marché au poisson à bi nga xam ne ñoo ko doon tabax euh, vers la ZAC. Mhm. marché boobu dafa am ay blocage yu bëree bëri parce que actuellement fi ñuy waxee yow marché bi de waroon na nekk un marché mhm. mais malheureusement jusqu'à présent mu am ay retard yu yu doy waar. Mhm. Euh, xam ne moom moo yor marché bi. ndax jaar na ci ay loxo yu bëri ya nga xam ne tey jii ñii boo xëy na kenn xamuloon moo tax mu mu tardé parce que c'est un financement qui est déjà acquitté marché bi na opérationnel. Mm-hmm. donc loolu day baax itam mu jub soññi ki nga xam ne moom moo yor marché ba mu xam ne ne kat lii dañ koo soxla daar daar. pour mu mën a bokk ci bilan président de la république. mais yu mel noonu aussi est-ce que du indi benn tâche ci seen régime maanaam manque de rigueur euh, ci yenn liggéey yi parce que marché bi yaa ngi koy wax ak yéex yi bi ñu ci nemmeeku mais aussi démb euh, maa ngi ah boo xam ne euh, demoon na xool travaux yi mu toll. boobu tamit nee ñu ciment bi mooy manqué moo tax liggéey bi xaw xaw a yéex yu mel noonu aussi est-ce que voilà république république sérieuse dina dina doxee noonu. xam nga Mamadou Awa un marché ko nit gagné li nga mën a def rek parce que ki ngay jox marché tey buy ñëw ci yow. mais justement doxin bi joxin bi est-ce que tegu na moom laa lay wax euh, dina la wan un sérieux ba nga xam ne bon daala daala dans la dans les règles mhm. marché bi dina fa jaar. mais tey jii am na ñi nga xam ne am na ay ay entrepreneur nga xam ne bu ñu xasee ba jot seen première avance seen première avance bon dañuy day naagal wala jël xaalis bu dugal ko ci leneen. Mhm. donc loolu il faut qu'il y ait vraiment un suivi pour le respect vraiment des des des cahiers de charge pour que à à date issue nga xam ne moom la ñu waxante woon